嗯。 bikum lu ëpp juróom fukki xale ci Sénégal xam nañu korona allah vox populi moo ñu ko xamal bokk na ca ay nen na tuuti ak ay taalibe l'évidence yéen a kaay mel ni ko daan ko ah ah bul jaxase yëf yi xale yi juróom fukk lañu taalibe yi juróom fukk lañu maanaam téeméeru gone kon ñoo am korona Sénégal vox na ko waa bu fekkee noonu la kon de jëwriñ ju ñu dénk wàllu xale yi moom falaj ji daanu na ba xalangu ndax loolu fa yéeme te xaaruñu woon loolu l'évidence na ko ma ci nday jooju ñu dénk wàll wi lañ ko santoon ba léegi defagu ko su du quotidien ne kon kay daanu na moo taxit Macky Sall njiit réew mi dóor na loxoom ca taabal ba ne caaxaan faaxe nañ bàyyi Afrique caaxaan caaxaan yi te jëlee xale yi ci mbedd bi critique yéen a kaay moom mel ku jàpp bopp di yuuxu wallu naan ay kan mooy ñëw wallu gonay taalibe yi ci corona bi ngir jëlee leen ci mbedd mi laas yéen a kaay ne si jamono ji ñuy bëgg a jëlee ay gone ci mbedd mi xam na yeneen gone yu ñu war a bàyyi ñu génn ci mbedd mi élèves yi ah le deux soin ñu ne ba tax jàngalekat yi mais ah baax na artu lañ def si du quotidien école bi nar a tijjiwaat nii ndama nga ci gàccee nga ci de l'observateur na ko kilifa yi ñoom joxe nañ calendrier yu bees sax bi ñu war a amalee examen ren yi Walfadjri yéen a kaay ne réewum Sénégal ñu ngi seetaan lu garaaw lu mën a tasaare corona ci réew mi a ah, seet gàttal réew yi ñuy wër am na ñu ca am corona dañ leen di andi fii Sénégal ngir faj leen te loolu wóoru de ndax ña ñuy ànd ak ñu jógee seen réew yi ñëw fii bu ñëwee hôpitalu Fann fa la ñu nekk di taxawaalu te fañ leen a waroon a ber mën naa am ñu andi wàlla jàngoro ji dara ci wóorut docteur yi nga xam ne nag xay ci seen kaw la nar a këpp ñu ngay yuuxu wàllu ñeneen ñu yuuxu di askanu Sénégal ndimbal ceeb li Macky Sall njiit réew mi jëmale ci askan bi bëri na lu ca jaarut yoon tappale ak ma neex ko ca xam maanaam ñañ war a jox dëgg joxuñu leen nay leer leneen lu leer ba yegg ca nañ kër docteur ba nekk ndaamaatu njëkk am corona ca diwaanu Jurbel ñañ fa wàll ak fam jaar ba wàll leen diggante boutique baak kër gaak doom jaak jabar yaak lépp la source ay yéen a kaay xëy leeral la mu leeral moom libération mooy ne téeméer ak juróom-ñeent fukki doomu aadama ju amoon corona Sénégal wér nañu ci ñeenti fan ah loolu de baax na lépp nag ndax mi waa kinin bi docteur Raoult tubaab ba digle ñun Sénégal ci loolu lañ ne de juróom benn fukki doomu aadama ak juróom-ñeent ñoom wér nañ démb rek diggante Dakar Touba Kolda Ziguinchor ba dem ñi bi terewul yéen a kaay bi gën a dalaw xel yi ne lu ëpp juróomi téeméeru doomu aadama wér nañu Sénégal amoon corona li am nag ci njabootu ñi ñu ber quarantaine mooy ña ngay dund lu mburu du daj ci taxal a yaaw seetal benn njaboot goo xam ne fañ leen a ber quarantaine ca Louga nee na ñun suñ bindaan bi nga xam ne juróomi at mi ngi suñ kër di liggéey keroog ba mu yégée ne fa ñoo ber ndax korona bi fa la doxee arrêté liggéey ba bàyyi ñu dem complètement beneen njaboot gu ñu ber ca diiwaanu Thiès ne ñun moom waa koñ bi bi ñu xamee ne ñun fa ñoo ber ndax korona laay lay laaw fa ñu doon daw ni kuy daw jaanu ñàngoor te loolu juddu yi korona bi ray bitim réew mooy na far force fra force doole mbaam ca réewu tubaab ya lañ leen di suulee kenn du leen andi Sénégal loolu mooy dogal bi cour suprême yoon jël réew mi yéen a kaay ñu ko xamal turbine yéen a kaay dëggal ko xam nga fa kalaame woon njiit réew Macky bi ak yoon ngir ñu andi leen seen réew suul si leen yoon nag nee ñoo bañ xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa benn moodu moodu bu korona ray duñ ko andi Sénégal fañ leen di suul bitim réew moodu moodee Hei, ao certo! gàttal fi mu toll nii dem ak dikk bi fa bi newetu daaw bi taxu koo baax newetab ren bi jiw engrais dara ba daree boola jeex ba tax enquête yéen a kaay na béykat yi jaaxle nañ de Sidi Ba yor kàddu seen seer nee na njaayum jiw mi la 15 mai la war a tàmbali jàpp 15 juin njiit réew Macky Sall nag nee na 60 milliards fa koy dugal ci mbay mi ma dugg ci direct news fekk fa tekk tekkaaral gi ku jegi opposition bu senegal nekkee jamono ji ayaw seetal moo xam corona bi ak lu corona bi kenn déggatul ñu wax ñoom ñëpp ay soow koog idée ci ñoom yéen a kaay bi leen ne loolu jaarut yoon seen taxawaay du loolu te mooy yéen a kaay mel ni ko naan ko génnee ci Ablaye Wade moom moom ma nga ca confinement ba waaye terewul ma ngay ñaawlu de aka wax la mu ñu wax moom source ay a kaay mooy jëwriñ juñ dénk wàllu tourisme ak avion yi séddale gi mu séddale juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar gars yi nee na jaaru yoon de Alioune Sarr ña ngay ñaawlu doxalinam ka ñu rafet lu doxalinam mooy Cheikh Ibrahima Niass Baye Niass tey témoin yéen a kaay fa xëy du ñu xamal kan mooy Baye borom faydu bi critique yéen a kaay moom xëy di ñu xamal na ña doon dakk jabar wi VIP ya te ñu tegoon leen loxo ñoom ñëpp altine lañ leen di xàttee waa grand place na ko yow xanaa yëgoole xew ñi bàyyi nañ la ñibbi seen kër yi ñoom ñëpp te si jamono jooju am na benn taximan bu jalgati woon ci couvre-feu bi fañ koo tëj benn weer am na ay xale yu góor yu dëkk ñetti mbaar ña ngi leen téye di xaar ñu àtte leen léegi nag ñii nga xam ne ñoom fa ñoo xam xaalis daal fa mel lu leen neex def ci réew mi lan moo tax ñu bàyyi la ñu génn ku jàdd yoon yoon foora dal sa a xam nday ak kumba ba tax Pape Jogay Fay ci direct news ne Sénégal kay jooy neen Sidi am wal fajiri aa ah, yaaw seetal tey fi réew mi toll ay bu fi sii di nekkoon jëlati na kàddu taxaw ñàkkante ko gaañi daan bañ nooteel tey diwaanu Sédhiou Kaolack Nioro Tivaouane yi nga xam ne càggante moo waral corona bi dem fa ay bu fi sii nekkoon naka noonu hôpital yu ñàkk yi docteur yi jafe-jafe yi tailleur yi baa doole doon xëy di uti dépasse lépp ñu xañ leen ko ay bu fi sii di nekkoon jumaa yiñ tëj ak jàkka yi ay bu fi sii di la mi nekkoon ci gàttal sii di na sénégalais yi sénégalais yaa ngi koy jooy ñàkk farak nguur ñeme ndak askan wi ci lii rek la ne woon de vox populi moom di ñu xamal ne am na ab moodu moodu ca réewum Italie Naples fa siif wuyoo la yegg ci ab tubaab bu jigéen bu doon faj docteur ci mbiru corona bi yow de tiisuma la mbaaw l'observateur na ko ma yokkal la ci fii Sénégal xam na benn soxna soo am jëkkër benn waay boo xam ne sandarma la woon sandarma moom it fa ko siif yegg ci kaw mu ngoog nag